bienvenue sur Digital Mobile dañuy ñëw première vidéo ci année 2021 c'est vrai que gën de vidéo ñu ñëw ak tuto qui xamné pour changer sa fond d'écran pour changer sa fond d'écran il suffit que nga sur WhatsApp WhatsApp léegi automatique automatiquement boo ñëwee sa WhatsApp da ngay cliquer menu réglage bu fekkee iPhone nga yor léegi boo ñëwee réglage nga cliquer fu ñu bind discussion après compte discussion boo duggee discussion nga ñëw fond d'écran nga cliquer fond d'écran léegi fii nii ngay cliquer choisir un fond d'écran léegi yow boo choisir boo bësee fii choisir un fond d'écran léegi WhatsApp moom dina la proposer plusieurs fonds d'écran boo xam ne. yow mom nga bëgg ça dépend de toi nga xol ban nga ci jël nga xol comme ça ñu jël sombre bi ni ça dépend de toi y a plusieurs façons légui on essaie un fond d'écran on prend cette fond d'écran légui si tu prends cette fond d'écran après automatiquement tu mets définir fond d'écran animé désactivé légui tu mets définir légui bo définir fond d'écran bi léegi automatiquement boo demee ci sa benn contact nga xool fii automatiquement da ngay gis ne fond bi ñëw na léegi voilà sama gars lii moo nekkoon suñu vidéo tey bi n'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche notification ngeen gën a abonné aussi pour vidéo bu ñu dugal ngeen mën koo am